ko maam bu toolee kon nag taxaw na seen kon nag suñu borom tabaraka taala may jàng xam ne sax mu Abdoulaye nee na keroog suñu borom wax yow ma alaf wax ñu bari aju na ci waaye dafa dafa koy war a gàttal bi suñu borom bindee woo yi te bindee ko jëm yi bu génne leen ci njëkk aadama ne leen alaf ba ndax bu ma seen borom nee na bis boobu ak tey laa leen keroog fàttaliku naa nit ñi newoon sama kanam ñu ñëw ci sama gannaaw ñu ñëw ci sama càmmoñ ñu ñëw ci sama ndeyjoor booba laa tàmbali ko mel taalibe ma di leen yar ba ñu nekk ci seen euh, baay ba ñu ñu ci seen maam ba ñu ci seen baay ba ba ñuy nekk ci seen nay ba ba ñuy ñëw àdduna kon suñu borom lu ko soob lay def bu fekkee ne may na ab jaam la ko soob yoonu beneen jaam ñëw ci jaam ñi ñëpp ko neexoon may ko kenn ndax suñu borom ku tabe la te ku yaatu la te moom moom ñëpp te amul xeebu yéegu ko def

mu ni euh, malaaka yooyu nga xam juróom-ñetti malaaka yi nga xam ñoo gàddu euh, euh, su borom bi mu ne dafa gis ay ku mel ne sëñ Tuubaa tudd seen tur muy laaj nag mastar bi waaw muy laaj mastar bi waaw ay laaj waaw beneen bi mooy wax nga ni nit nit ki ni ñuy dekkee bi maanaam du doon benn daal waaw doomu aadama yi seen dekki du doon benn ñu bëggoon a xam loolu loolu tam ci biir tool ñaareel ba am na benn laabiri boo xam ne bëggoon naa yi nga def ko ndax dafa am ay mbokk yoo xam ne dañuy nii man nga yow en tant que jullit nga nekk ci biir lu mel ne euh, système marxisme euh, idéologie marxisme ba pare ba doonub jullit ma doon laaj ba tey euh, xalaat ci moom sallam wax yuxsaru al-mar'u ala ma maata alayhi nit ki meroon bi mu meroon ci iman ak ci ixlaas tawxiidam mooy nekk maanaam yére buy dekki moo tax ñu ne nit ñi bu ñuy dekki ñii dañuy sol mbubb tubay dal mbaxana kaala ak lépp lu nit di waaje ñii am tubay am simit du ñu am xaftaan ñii am turki ak tubéy wala tukki boo xam ne bu gàtt lay doon bu suturaal seen awra tubéy bu gàtt boo xam ne gàtt ci seen boobu ñii turki kese duñ am tubéy ñii tubéy kese duñ am turki ñii ngem ñii xaaw xale la ñuy takk seen digg loolu lépp mu ngi aju fa seen tawxiid ak seen sellal ak seen farlu fa mu toll ndax loolu yëpp yi nit ci leeru jaamu yàlla moom lay waaje mooy wàccaayam leeru jaamu yàlla moom lay dekkee leeru iman moom lay doxee ci bis pang ba jëm fa ñuy daje jëm ci ématu baddi la ba xëy na ardi wa sama wala bu bari lay waxee da taxar bu la gëm ci mooy ndax mën naa nekk ci yeneen parti yi jëlee mun nga nekk li mu mën nekk mag loolu moom ku xam nag mu xam nag xel ndax moom matérialiste la moom moom wax ma matérialiste yi ak spiritualiste yi dañoo wute ndax nit koo xam ne pour yow ñaari xaaj yi ñii nanguñu ne xam ne ne roo mun la ñàkk nangu nañ ko waaye nee roo matière koy meññ maanaam li leen teg li ñu teg loo moo di mën nañoo gis fu matière nekk roo nekk waaye mën nañoo fekk roo kese fu matière ñëw loolu li leen gën a mën moo di xamuñu mënuñu mënuñoo gis ko mënuñu koo gis mën nañoo mënuñ mën nañu ne ñoom mënuñoo gis fenn roo te àndul ak matière ñoom man ko ndax ñun gëm ñu amul malaaka yi gëmuñu amul arachide kursi yooyu yooyu ci àdduna bi ñu ci li ñu gisee rek xalaat loolu nag mënuñu fee gis ndax yow gannaaw ñoom jinne sax mënuñu koo gis waxuma laa rawaxaan waxuma laa malaayika waxuma laa arachide kursi yu kon bu ñu nangoo amul ruu ndax gis nañu nit ci dund bu dee ñu xam ne la ko doon dundal te dara manquewul ci moom laa dañ moo tax dundal ñu nangoo dañ amul ruu ñu ne ñu gis na euh, yaram moom mën na am taru du am bu amee yaram a ko meññ loolu mooy seen xalaat loolu mun la ànd ak l'islam ndax l'islam nanguwul métempsycose réincarnation nanguwul matérialisme yooyu yëpp nanguwul l'islam li mu tëral mooy lépp loo xam ne lii yonent bi indi na ko jëlee ca borom ulama yi leeral ko muy alquran ak hadith ak téere yi nga xam ne moom la borom xam-xam yi tëral marxisme nag mën nga ànd ak lislaam leneen lu doole te mën la ànd ak yeneen ci ngeen xam yépp amu ci lenn dafa naan da ñoom dox nañ jamono bi nga xam ne ñun nit ñi ci lii la lañ gën a jëpp te buñ ne mën la ànd ak lislaam kenn bi ci ñëw ñu def tasawur maanaam ñu évoluer dikk naan nangam mën naa ànd ak lislaam nangam mën naa nangam bañ diine naan waaye ñi xam diine ñoom seen bopp xam nit diine leen xam nañ ne yooyu yëpp amu ci lenn ba mën a ànd ak diine mënu la ànd ak diine mënu la ànd ak diine xalaat doomu aadama dong la boo xam ne doomu aadama ne yow bu la ëppee xam-xam wala mu ëpp la gis-gis wala mu ëpp la di gën a béréw ci xalaat ba tabax système am nit dong la boo xam ne la mu xalaat amu ci lenn muy wax yu amu ci lenn loo xam ne ne jóge na asamaan amu ci lenn loo xam ne ci bi yonent la jóge xalaatu boppam dong la te mi ko xam ne la ko wër ak jamono ji mu dund ci la ci la ci la ci la baate ci li mu lu lislaam taxalul la kon nag mënuloo ko nag nangu lislaam lislaam li mu taxal moo a lislaam la nga xam ne loola moom lañ ciy wut ñi nekk si maanaam lañ ciy wut lislaam daf koo tëral daf koo daf problème yi daf koo résoudre bu yàgg yàgg lislaam lislaam nag soxlawul nga nekk ci ba ne naa wàcc ni mu ni mu résoudre problème tàngam naa ko ñu jëlee mel ne kon gëmuloo ko wala doyu la wala bu doyee yow doyu réew bu doyee dina doyu la ko jàng sax ba xam ko ba gis ay faay dana nan la dañee lu ko mën a lañ bi gisuloo ko da nga ko jàng sax yow nga tëb rek jàngalee loolu ñéem la a ko def ëpp xam-xam ci yoon boobu nga nangu bu la nee mën naa ànd lislaam moom xamul lislaam mënu la ko wax jullit bi nga la demee daal maa ngi déglu rek maa ngi déglu ñu dem benn laaj bu gàtt parce que am loo xamante ne bii dañu ko togoon yàgg la en quatre-vingt-quatre ci weeru koor ñu ngi rëdd muy baat laa ilaaha illallah may laaj man songoo la ko pour ma nekk di ko teg dafay gudd mais damay laaj xaras boo xamante ne bii dina yemul ab jullit mu di ko def comme nañu ko sant ndax เราจะต้องบอบกีบาทจะสมงยนี้สมัยสุขภาพเนี่ยสมัยเราจะประทับใจสมัยนกันก็มีจุดการไม่ได้โยกไปที่มองอะไรก็ต้องสมัยก่แต่ยังไงมูลนิธิปฏิบัติอยู่นักเตะทบทีมที่เรียนรู้สิ่งที่เราทำได้ไงไม่ละนี้คงเป็นกที่มีความยากลำบากในการทำความสุขในเรื่องต่างๆที่เราที่เราที่เรา ku ci nekk mu sant ba yàlla woon yoon yóbbu ci moom sama sama bu ñu ñoom yëpp ñu ànd loo ci gàttal rek may laaj ñun doom ñun doom lañ nak tuddee mais wut ñu dugg ci leen kau dañ ko yóbbu baat waaw mu ni ndax li ngi ci quarante ans ndax moom euh, dafa bëgg daal wax ko lu ko gën a jëriñ ci loolu nit bi di ko gën a jëriñ pour mu koy jëf tudd ah. yàlla ñu ci kar am na ay yoon am na zahir am na batin mooy al ibnul xaas ak al ibnul am al ibnul am mooy ndigal bi ñu ko diglee jullit ñëpp dañu ko digal jullit ñëpp dañu ko digal ci ndigal loolu moom nit ki lu mu ci mën a def lu mu gën a bare moo gën waaye nam gën a fexee gën bu fekkee ne moo gën a bari ci lu tax kon nañ gën a taxee bu fekkee kooku ci la koy jox dafay lay xam xam sa biir xam sa ci loola lay nattee nit bi lay jox ak a wax fekkee nag nga xam ne la ilaha illallah baat la boo xam ne bii moo gën ci lépp lu ñu tudd ci la nga xam ne bokk na ci li indi al fathul akbar ndax su yàlla bu nekk fath ba muy indi laa a illa fathul akbar lay joxe moom ko kàttan ak a bare a a nu mu a ci bu fekkee nag ilmul xaas la nga xam ne kuy tërbiye la cheikhu tërbiye wala cheikhu tërbiye ko ko jox day seet xaalam xam lim bi ñu koy jox nu muy toll yan jamono la koy def waaye daay def ci islam moom al islam jullit ñëpp lañ ko digal te ñu gën a bare ñu leen ko tur yàlla moom day bëree seetaan dañuy bëree seetaan ko jàggee ba ko mu songaat la kon foo toll nekk ci moo gën waaye li muy war a àndal ba njëriñ yi am solo waxoon naa ko bëri démb rek mooy xol bu laab ci melo yu ñaaw yi mooy rëy añaan bëgg adduna soxor bari noonee noonoon ay nit tëdd ngir yàlla yooyu ndax wax naa ne yooyu mu ngi mel ne ay ñam maanaam yàlla bu nekk ci néeg seytaane di xaj bi yow borom néeg bi boo dàqee seytaane mu génn te xaj bi dafa xiir gis na yàpp bi day day làqu te ba nga dem mu dellu naka noonu pour yàlla li koy tudd day tax seytaane day génn sa waaye seen jikko yooyu ak melo yooyu sa boo bàyyee boo noppee bàyyi boo boo bàyyee ci yàlla rek mu daal di ndax fi la ñamam nekk waxtu woo xam ne nag jaar nga ak sa bakkan ba jëm yooyu saytaan yi amatu ci soxla doo dugg waxtu woo tuddee yàlla waxtu woo tuddul yàlla yëpp day du dugg ci sa xol wala waxtu wi sa ñëwee xam ci rek lay doon boo tuddee yàlla doo ci dugg ci at bu boobaa ci lay gën a ñaan baax yooyu di ëpp jël baax yooyu ci bopp itam dana dimbali nit ci raxas ay yooyu ak saabu la saabu nag loo gën a fóote rek saabu ah bi gën a wàññi boo ko taxawee sa sa seetlu ko moom it day indi jikko yooyu naka la tafakkur tafakkur ndax alxuraan fa mu tuddee zikr bi zikr alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi sama wala rabbana ma xalaqta hada baatila li nga suñu borom di yedde wax naa ci ñàkk yi ñëpp ñu ñu ñàkk waa ci kaw def ñu kay ne sama wala yow moom ala yow ana ko mën wa ma yaqul bil ala rasul ñaar bu ma ko déggee mooy ndax dafay wax ni waxtaan su waxee ni soobee yàlla ak yonent bi ak seen tuuba ndax loolu la bëgg ñu leer ndax cër la wala cër. bu soobee yàlla ak yonent bi ak seen tuuba wala bu soobee yàlla ak yonent bi wala bu soobee yàlla ak jiw wala ak nangam. ñoom ñooy béykat yi ndax coono moom yaa ngi doon ko def yàlla rek lay soxla ci benn jàpp mu soobee ak yàlla ndax nit moom bu soobee yàlla fekkoo bu leen ci coono wala bu soobee yàlla foofu yàlla fekkoo belakang di mana ya tidak mungkin bahwa yang lain yang lain yang lain musyawarah kemudian mengumumkan yang jatuh coba yang lain yang lain mengumumkan ini yang berarti orang yang bukan wahai dua puluh lima dua puluh lima ñu bokk rek ñoo ko def ci léegi kon mën na ne mën naa laa defal nangam ngir yàlla ak yàlla te si daaw sax daawoon na man de ma danaa ko gis ngir yàlla ak yow ne fit na boo xaale loo ko boole keneen moo ci loolu bu ca ko ko kon danaa naa ko ngir yàlla kon nag gis ñu koy def nañ ko def ngir yàlla man nag boo def ngir yàlla te fi ne ko gërëm moo tax fii dafa xaar yàlla farlu di jàmm لن mooy mawqifam ماذا يجب أن يكون موقف المؤمن بالإسلام شريعة عاقلة أمام تحديات الواقع الذي تجسده اللاإسلام. جنوب يوم المؤمن دي يوم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يا أبي أعجب على القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وردت لكم الإسلام دينا كرب للإسلام لكم تكتب لنا maanaam mu ñëw mu nekk mu xew ci jamono ak xew-xew bu xew ci jamono ah moo ba nit ñi jullit bu war a jël leer na ci alquran wala leer na ci hadith déedéet ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngalee ijtihad ndax keroog bi nga xam ne jóge nañ ci waq waqatul ahzab xeexul ahzab te waa banu qurayza waroon leen ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dañoo war a dem ñooñee mbugal leen ndax li ñuy def mu di moom doy lay waar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yebal ku ku yéene yëkkati baatam te ko naan yonent bi ne man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxiri falyanzur ilaymaa axraja illaa fi banii Qurayza ku gëm yàlla ak bis bu mujj ba bu mu jëlee tax tànk bu ñu ci jiir euh, dëkk ba waa banii Qurayza bu ñu demee aw yoonu am ñu ne nañ julli te waxtu bi jot na ñii ne yonente ñu ne buñ julli lu ñu foofu sa ñu ne loolu kat daf koo ñu ne bu bokk tak san daanu gaaw loolu rek la ci nam waaye namul ci waxtu bi jot ñu bañ ko julli kon da nga julli ñu ne ñun daal ci boobu julli ñu laaj julli ngeen borom yéen laaj julli ñu julli ñu julli sax julli ñu ne ko dañoo xam xel ne fa nga teg ak ko yàlla teg dara bu la mu lu def di la waxe julli julli moo di kenn ku ne fas yéene ànd dëkk ba nga koy julli fa kat kon daal taw kenn ku dana ko def mu ne mu ne mu ne ku ak mu mu mu mu yonent bi bàyyi leen ñun ñii ngeen ci dëkk ñëw ñii ngeen ci dëkk ñëw ñii ngeen def nii ñëw ñii ngeen def nii dafay xam ne doomu aadama yi xel yi duñu benn am na ñoo xam da nga leen jox rek ñu leen liggéey te lu mu reere bu am ko wala daf koy jël dañ koo xam ne mën naa yor junni nit di leen dundal ba ba ñuy dee xam ne man yàlla dañ su leen noonu la leen ci fan yi nga xam ne ko xam ne dafay jublu dee ak ko xam ne ñu cee ak ñu tox naka noonu nag wala la xam ne ak borom dara jaar baax ko sax ñu ne ndax buñ seetee li ñuy wax xàq xàq ak sharia kenn ku ne xàq ak sharia wuute nañu yoon daal sa sa sa sa mbir ku ko wax nga saxal ko yoon daal sa mbir ndax day kocca ci iman diggante jaam bi a borom ndax xëy ak loi loo xam ñëpp lay male ñëpp dañu koy def ñëpp dañu def nii ñëpp dañu def nii waaye diggante ko àndi doom yoon ñëwu ca ko gisee lu mu doon nan ko tàmbalee ci ko mu gën a suufee nan ko tàmbalee ci am kilifa ak ku amul kilifa nu seet ko ci garab boo xam ne dafa sax ci àll ci yoon bi ak garab boo xam ne dafa sax ci digg kër wala ci wanag garab gi sax ci kër gi ñu làkk ko di ko suuxal di ko jubbanti garab yooyu ñu bàyyi ko bu ko kéwél rombee lekk si bu ko nag lekkee romb si wala mu dëkk ko bu ngelaw ñu ne daaneel ko bu daay ñu ne tàkk tàkkaale ko loolu moo tax yow ma yàq na ci rahman ko xalit ko seytaan loolu tax ñu ne li anama ajba cheikhan mursida fa cheikhoo seytaan fa fasada ndax nit bu fekkoon ne sax amul ci kilifa gi dudul am na ñu sax njëriñ boobu amul ci lu mu dana taxaw moom mu di wax lu koy delloo wala lu koy fàttali wala wax bu ko gisee xelam dem ci yàlla la koy tax bu kilifa ga amuloon benn baat amuloon benn mën na sax loolu njëriñ la waaye fawdaa bi ñuy wax mooy kenn ku nekk sa bopp mooy li ñu bëgg a indee tuddee ko liberté l'islam nanguwul liberté ndax xolofaaw yi bi yàlla bi salaam sama diggee dañoo seet sax kenn muy am mu dëgg yëpp mu wóor leen nga xam ne kenn sañ mu digal la dara nga nga nga leen ko nit nag boo xamee amul kenn ku koy digal te àggul ci boromam iblis daf koy fooye rek seytaan daf koy fooye du ñàkk way ko seko seytaan xel fatala ndax wasi la bu fekkente ne suñu borom tabaraka wa taala dafa nangu shafaa yomal xiyam nga xam ne dana nangu jaam bu ci ñun beneen morom jaam ba ñu nekk sax ne yow xiyam keroog bu ñu jee àjjana da nga gis jaam boo xam ne dafa sab safara gis kenn ni koo nga xam ko sama du xam kooka kooka ne eh yow mën naa la jox ndox bu ko faral di loolu da ko wax dëgg mu ne ma tax loolu mën na borom mu jéggal ma ci nekk si xam nga laajte suñu borom bëgg dara la ko naqari dara la ko naqari bu fee maa si yéen su ko ëllëg la ayoo suñu mu ne suñu borom kii de defaral dana njëkk te man de dañaa kooku yéen gis na ma mu ne ko métier bi sabara jëndaloo ne bu mu duggee ci bàmmeel mu nga nag ñëwee imam Malik ci bopp dafa ñëw fekk nit la wax ne mujtahid mu ayyat la mujtahid ñaar la mujtahid mutlaq ak mujtahid mu ayyat mujtahid mutlaq mooy ma ne imam Malik imam Shafi imam Abi Hanifa imam Ahmad mu Hanbal nga xam ne moom yoor boppam lay du topp kenn ak imam mu ayyat nag day fekk mujtahid la àgg na ci ballalu àtte yi na ko kee mane waaye day nekk ci biir ngërëm kii kooku nag dafa nekkoon imam Musayyab nekk ci biir ngërëm Maalik bi nga xam ne ne ñaari laaj yi laaj ci bàllu ci kër Maalik bi dafa daal dañoo génn Maalik daal di a day ku mel ne jiw kenn na ko laaj ci bàllal fii nga xam ne jàngale lay ni moom moom lay liggéeyee malaaka yi daal di ma ñu ko dem ba ci حتى يحمل الإعلان كلام في أنفس الله تعالى ثمانية فكيف أنت يا عمر إذا جاءك الملكان فقد ثلاثة وترى من جاء الملك من بني كرس دكتور بني كرس بني لما كده من قال هو بعد أنا خلي ما أنا قال وأنا إذا لا أسيبه ما وصل البرد تحمل متعب بني من برد الله تعالى ما يرجع له سهل من عبد الله هنا كرب سبحان الله يوم الحلقة wax bari aju na ci waaye dafa dafa koy war a gàttal li suñu borom bindee roo yi te bindee jëmm yi mu génne leen ci ndigg aadama ne leen alku doon ndax ma seen borom nee na bis booba ak tey laay keroog fàttaliku naa nit ñi newoon sama kanam ñi newoon sama gannaaw ñi newoon sama càmm ñi newoon sama ndeyjoor booba laa tàmbali samay taalibe ma di leen yar ba ñu nekk ci seen e, baay ba ñu ci seen maam ba ñu ci seen baay ba ba ñuy nekk ci seen nay ba ba ñuy ñëw àdduna kon suñu borom lu ko soob lay def bu fekkee ne may na ab jaan la ko sor yoonu nga def jaan ñi jaan ñëpp ko neexul may kenn ndax si borom ku tane la te ku yaatu la te moom moom ñëpp te amul ku xeebu li léebu kon ko sor def def fekk ne mën naa indi ci ñi ñi laaj yéen ñëpp di waaye ñu war a jàppale woon na sama sama jërëjëf salaamaaleykum man day sama sama laaj sax euh, sëñ tontu la ci biir waxtaanam ndax li euh, euh, ma dégloo ñuy wax ci seetlu daaw wala fan yi Euh, sama xol tàng na ci lool ci li ma jot a jàng rek ci ci taw xiit ma ma ma naqaroo ko ma doon bu ma bu bu njëkk teewee ci daal dinaa ko laaj waaye tontu la soli laa la xam euh, beneen bi benn mbokk nag moo ma yónnee laaj ni naa ko mu ni euh, malaaka yooyu nga xam ne juróom-ñetti malaaka yi nga xam ne ñoo as borom bi muy dafa gis ay ku mel ne seen tubaab tudd seen tur muy laaj nag masdar waaw waaw des naa ay laaj. waaw beneen bi mooy wax nga ni euh, nit euh, nit ki ni ñuy dekkee maanaam du doon fenn daal waaw doomu aadama yi seen dekk du doon fenn ñu bëggoon a xam loolu loolu tam ci biir

فعلا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد ci xalaat shafaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa bi wasila yonent bi sallallahu alayhi wasallam bind naa awal shafi rek xam nañu kon yeneen si fa awal awal shafi rek maay ci ni karam kon wala nga dégg ne dana ñam wala maw bi ahlu sunna bi saxal nañ ne yonent yi daan yaram malaaka yi daan yaram wala maw yi daan yaram awliya yi daan yaram doom ci ñaari waajur gën sax dana ramu moom ku ko weddi daal ba gàtt na lool mu koy wala ndax wala yasbauna illa liman istataa la alquran wax du ñu mën a ram lu dul ku neex yàlla te yàlla jël yàlla dafa fàtte jaam yi ay dara waxtaan yoo naa ko dëgg rek ne leen yàlla ñun sutante leen nit ñi ci fan sutante leen ko ci wërsëg sutante leen ko ci daraja sutante leen ko ci noonu la te alquran nee na wala la akbaru darajaat wa akbaru tafsila yom al xiyaama gën a alaaka moo rawati ak gën a rëste man leen ñu ko ëppalee nit ci ci ci ay wërsëg nit da ngay koo xam ne su mu toll bu maxu day liggéey te lu mu reere du am lu góob wala daf koy jël dañ koo xam ne mën na yor junni nit leen dundal ba ñuy dee nga xam ne kon yàlla su dañ su leen noonu la si def ci fan yi nga xam ne wax nga koy jubbi dee ak wax nga jubbi téeméer ak mu dox naka noonu nag wala la akbaru darajaat wa akbaru tafsila ndax buñ seetee li ñuy wax xaqi xaqiqa ak sharia kenn ku ne xaqiqa ak sharia wuute nañu li yor daal sa sa sa sa ngir ku ko wax nga saxal ko yor daal sa ngir ndax day kocca ci iman ak xaqiqa du leen lu diggante jaam ak borom ndax sharia ak loi la boo xam ñëpp lay male ñëpp dañu koy dem ñëpp dañu ñëpp dañu def nii waaye seen i jaam bi ak boromam moom relation la ki nga xam ne xarit président la wala xarit premier ministre bi la wala xarit naan la la mu jëfee teg moom yoon mënu koo àtte yoon yoon ñëwu ca loolu mooy mooy wasila wasila nag wasila nag boo ko gisee luy lu mu doon nan ko tàmbalee si ba mu gën a suufee nan ko tàmbalee si am kilifa ak ku amul kilifa mu seet ko ci garab boo xam ne dafa sax ci àll bi ci yoon la ak garab boo xam ne dafa sax ci digg kër wala ci wanag garab gi sax ci kër gi ñu làkk ko di ko suuxat di ko jubbanti garab dee ñu bàyyi ko bu ko kéwél rombee lekk si bu ko nag lekkee romb si wala mu dëkk ko bu ngelaw ñëwee daaneel ko bu daay ñëwee tàkk tàkkaale ko loolu moo tax yow ma yàq man ci rahman ko bañ doro seytaan loolu am ne li ana man bu fekkoon ne sax amul si kilifa gi ko gisee bu ko ñemee def ko amul ci lu mu dana tax toog moom mu di ko wax lu koy jëlloo wala lu koy fàttali wala wax lu ko gisee xelam dem ci yàlla da koy tax bu kilifa ga amuloon benn baal amuloon benn man man sax loolu jëriñ la waaye fawda li ñuy wax mooy kenn ku nekk sa bopp mooy li ñu bëgg a indee tuddee ko liberté l'islam nanguwul liberté ndax xolofaaw yi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo seet sax kenn muy ab bëgg si yëpp mu wuute nga xam ne kenn sañ mu digal la dara nga nga nga def ko nit nag boo xamee ne amul kenn ku koy digal te àggul ci boromam iblis da koy fooy rek seytaan daf koy fooye ñàkk mooy ko se ko seytaan xëy fatara ndax wasila bu fekkente ne suñu borom tabaraka wa taala dafa nangu shafaa yomal xiyaam nga xam dana nangu jaam bu tinum beneen morom jaam ba ñu nekk ci sax ne yomal xiyaam keroog bu ñu dee àjjana da nga gis jaam boo xam ne dafa sab safara gis kenn nit koo nga xam ko tamam du xam koo xam koo xam ne eh yow diw mu ne koo nga xam ne bu ma jotee yow mu ne ko yow day war dama fàttali ndax ci sàngam mar nga buy bëgg a dee man maa la jox ndox ba mu fàttali ko loolu ko wax na dëgg mu ne ko ndax doo ci sa borom mu jéggal ma génn ma si mu daal ne gannaaw bu dem àjjana suñu borom bëgg dara la ko naqari dara du ko naqari bu fee maa tey lu ko la dul ayuni suñu mu ne suñu borom kii de defaral na ma njëkk te man de ma ñaax kooku yi sama mu ne ko na génn safara am ñu ko dem ñu génn ko shafa ci na am wala ma wax nañ ne am na ba xamatu alqaadi iyam la wala kenn ci fuqaha al malik malik fuqaha maliki yi am na ko xam ne bu gaañoo ñent ñent nit ñu gëlëndoo ne bu mu duggee ci bàmmeel bu mun karak nag liggéey imam malik ci boppam dafa ñëw fekk nit loolu koo xam ne mujtahid mu qayyat la mujtahid ñaar la mujtahid mutlaq ak mujtahid mu qayyat mujtahid mutlaq mooy ma ne imam malik imam shafi imam abi hanifa imam ahmad muhammad nga xam ne moom yoonu boppam lay du topp kenn ak imam mu qayyat nag day fekk mujtahid la àgg na ci ballalu àtte yi na ko kee ma ne waaye day nekk ci biir njërum kii kooku nag dafa nekkoon imam mu xayat nekk ci biir ngërëm maay bi nga xam ne ñaari laaj a laaj ci bàllu dikkër a maay bi ne dafa dal dañoo ne leen yéen daal yéen a day waar ku mel ne jiw kenn na ko laaj ci bàmmeel fii nga xam ne jàngale lay ni moom moom lay liggéeyee malaaka yi daal dafa ñu ko dem ci حتى يحمل الياء كلام في عند الله تعالى كلمة إيه؟ فكيف أنت يا غلو إذا جاءك الملك قال فقل ثلاثة وتر ثلاثة من الجانب لا يمكن من جرس ذكر من كيس كيس من غير من قال هو بعد ما أنا خلي معه من قال من إذا الأكل كمان بس على كل تحمل مسألة بند سبحان الله تعالى ما يجعل يوم سهل ما بالله هنا كرب سبحان الله يوم ألقته وحي بريء أجنبي وعيرت سبحان الله bi suñu borom bindee ko itam bind eh, ko jëmm yi mu génne leen ci ndigal aadama ne leen aras borom ndax ma seen borom nee na bis booba ak tey laa yàlla keroog fàttaliku naa nit ñi newoon ci sama kanam ñi newoon ci sama gannaaw ñi newoon ci sama càmmoñ ñi newoon ci sama ndeyjoor booba laa tàmbali samay taalibe ma di leen yar ba ñu nekk ci seen eh, baay ba ñu ci seen maam ba ñu ci seen baay ba ba ñuy nekk ci seen nay ba ba ñuy ñëw àddina kon suñu borom lu ko soob lay def bu fekkee ne may na ak jaam la ko soob yoonu beneen jaam ñu ngi ci jaam ñu ngi ñëpp ko neexoon may kenn ndax suñu borom ku tabee la te ku yaatu la te moom moom ñëpp te amul bu xeebu lu yéebu kon ko soob de def rek nag mën naa indi ci ñi ñuy laaj yeneen yoon bi waaye mën naa ñu war a gàttal mën na sama sama jërëjëf waaw salaamaaleykum man day sama sama laaj sax sëñ tontu lañ si biir waxtaanam ndax bi ma dégloo ñuy wax ci seen daaw de fan yi sama ko tàng ci li ma jot a jàng rek ci ci ma ma ma ma doon bu bu bu bu njëkk teewee ci ko laaj waaye tontu ci sori daal xam beneen bi benn mbokk nag moo ma laaj ni naa ko laaj mu ni malaaka yooyu nga xam juróom-ñetti malaaka nga xam ñoo gàddu as borom bi muy dafa gis ay ku mel ne du seen muy laaj muy laaj ay laaj bi wax nga ni eh, ñi euh, nit ki ni ñuy dekkee maanaam du doon benn daal waaw doomu aadama yi seen dekk du doon benn ñu bëggoon a xam loolu loolu tam ci biir tool ñaareel ba am na benn euh, laabire boo xam ne bëggoon naa it nga ko ay mbokk yoo xam ne dañuy ni man nekk ci biir lu mel ne euh, système marxiste idéologie marxisme ba pare ba doonu jullit ma doon laaj ba tey xalaat ci loolu. فقول قال جيت ولا الناس هاي النور من الذكاء يحشر المرء على ما مات عليه مثلي مروان مروان في إيمان أكيد خلال توحيدا mooy ne maanaam yére buy dekki moo tax ñu nit ñi bu ñuy dekki ñii dañuy sol mbubb tubay dal mbaxana kaala ak yépp lu nit di waaye ñii am tubay am simis ñii am xaftaan ñii am turki ak tubay wala turki boo xam ne bu gàtt lay doon sutural seen awra tubay bu gàtt yoo xam ne waa seen boobu ñii turki kese dañu am tubay ñii tubay kese dañu am turki ñii ngem ñii xaawu la lay dañu fekk seen loolu lépp muy aju ca fa seen tawhid ak seen sellal ak seen farlu fa mu toll ndax loolu yëpp nit ci leeru jaamu yàlla moom lay waaje mooy wàccaay leeru jaamu yàlla moom lay dekkee leeru iman moom lay tax ci bisu pang ba jëm fa ñuy daje jëm ci yëpp bari la ay na ci sama waat bu bari la waaye da taxat ci def mooy ndax mën na nekk ci yeneen parti yi ak yooyu yooyu mun na nekk moom xam na mu xam na xëy ndax moom leer la moom ndax maanaam matériel ak spiritualité yi dañoo wute ndax nit koo xam ne pour yow ñaari xaaj yi ne xam nañ ne roo mun la ñàkk nangu nañ ko waaye nee nañ roo matière koy may maanaam li leen def ci li teg la moo di mën nañoo fu matière rek roo def waaye mënuñoo fekk roo kese fu matière ñëw loolu li leen gën a mel moo di xam mësuñu mënuñoo gis moom mësuñu ko ci mën nañoo mënuñu mën nañu ñoom mënuñoo gis fenn roo la matière ñoom man ko ndax ñoom gëmuñu amul malaaka gëmuñu amul arraché kursi yooyu yooyu yëpp ci àdduna bi ñu toog ci li ñu gisee rek la ñu xalaat loolu nag mënuñu fee gis ndax yow danaa doon jinne sax mënuñu ko ko ndax gis nañu ko doon dundal rek remantuñ ci moom loolaa dañ moo tax dundatul ñu nangu ne am ko ñu ne ñu gis ne kon gannaaw woo moom mën na yaram moom mën na am loolu mooy seen xalaat loolu la am l'islam ndax l'islam nanguwul benn am ci koy réincarnation nanguwul matérialisme yooyu yëpp nangu ko l'islam li mu nangu mooy lépp loo xam ne lii yonent bi indi na ko jëlee ci boromam xulamaaw yi leeral ko muy alquran ak hadis ak téere yi xam moom la borom xam-xam yi tëral marxisme nag mënu la ànd ak l'islam leneen lu mu doone bu la amee yeneen ci ngeen xam yëpp am ci leneen mën a ñoom tax nañ jamono bi nga xam ne nii nit ñi ci biir lañ gën a jëm te buñ ne mënu la ànd islam kenn ci ñëw ñu def ko tawu maanaam évolué dikk naan nangam mën na ànd islam nangam mën na nangam bañ ñu ne waaye ñi xam ci ñoom seen bopp xam ñi ci ne xam nañ ne yooyu yëpp am ci leneen lu mën a ànd ci ñoom mënu la ànd ak diine mënu la ànd ak diine xalaat doomu aadama dong la koo xam ne doomu aadama da yow bu la ëppee xam-xam wala mu ëpp la gis-gis wala mu ëpp la di gën a gërëm di xalaat ba tabax système am nit doom la koo xam ne la mu xalaat amul ci benn buy wax ni amul ci lenn loo xam ne nit gën a asamaan amul ci lenn loo xam ne ci yonent la xalaatu boppam doom la te ni ko xamee ci la ko wër ak jamono bi muy dund ci la ci la ci la ci la baare ci muy def loolu nag ah lu lu l'islam taxal la ko nag mënuloo ko nangu nangu l'islam l'islam bu taxal moo mën a dox l'islam nag lépp daf cee nekk la nga xam ne loola moom lañ cay ñu nekk ci marxisme lañ cay l'islam dafa dafa problème dafa yàgg yàgg yàgg ci l'islam l'islam soxla nga nekk ci borom ne naa war ci ni mu ni mu résoudre problème bànq naa ko mu ngi ci leer mais ne ko gëm la ko wala doy la wala bu doyee dem ci leer bu doyee dem ko ci kanam yëpp la ko jàng na ba xam ko ba ci ay ay dara yii nan la demee ba nga ko mën a lekk ci loo ko da nga koy jàng sax yow nga tëb tëb rek jàngalee loolee ñu ne dafa nekk ëpp la xeex wala mu ëpp la xam-xam ci yet boobu nga nangu bu la nee mën naa ne islam moom xamul islam mun na ko wax jullit bi nga xam ne dafa xamul islam te xamul islam daal amul ban maa ngi jéglu nag maa ngi jéglu ne dama koy def laaj bu gàtt parce que dafa am loo xamante ne bii dañ ma ko joxoon yàgg na en 84 si weeru koor si neuf heures nii muy baat laa ilaaha illallah may laaj man sama wala bopp pour ma nekk di ko tekki dafay gudd mais damay laaj xarat boo xamante ne bii dina yemoo ab jullit mu di def comme dañ ma ko sant yàlla tax ma foofu ci baax yi lépp sama lépp man ci foofu la nekk ci ma tool nii par exemple man sama ñeent at ba ma jëm kanam may laaj loo xamante ni moom laa ci tolloon pour mu di ko def beneen laaj bi moo di ni ba tey maa ngi ciy jégul ndaxte ab jullit moom jullit rek lay doon su gisee lu mu xamul day laaj may laaj ni comme ñun saa yi ñu wax ni yàlla moom ma sama borom ñu leen toppante noonu te jubluwuñ ci lu dul ni ku ci nekk mu Cheikh Bamba yàlla ko woon yoon yóbbu ko ci moom asalaasam ba ñoom ñëpp ñu àndandoo cëb gàttal rek may laaj ñun doo ñun dong lañ koy wut jubluwuñ ci leneen. mu ngi mu ngi sax mu ngi bu njëkk la la mu koy jël te mu ngi ci wala boog nga ko li ko gën a mu koy jël lim bi ak lim bi waaw dañ ko jox laay daal dañ waaw mu ni ndax ñu ci 40 ans ndax moom dafa bëgg daal wax lu ko gën a jariñ ci loolu li li ko gën a jariñ pour mu koy def waaw yàlla ñu ci karam am na ay yoon am na zahir am na bàyyi mooy al ismul xaas ak al ismul aam al ismul aam mooy ndigal yi ñu ko tuddee ci ñëpp dañ ko jël yi ñëpp dañ ko jël ci ndigal loolu moom nit ki ci mën a def ñu gën a bàyyi moom bàyyi ñu gën a xamee kon nañ ko def xeex bu fekkee ne ak ibnu xaas la kooku ki la koy jox dafa lay xam xam sa biir xam sa jàngoro ci loola lay nattee biir lay jox ak waxtu yi naan waxtu yi ko war a wax fekkee nag ibnu am na nag nga xam ne la ilaha illallah baat la boo xam ne bii moo gën ci lépp lu nit tudd ci la ñam nga xam ne bokk na ci indi al fatul akbar ndax su yàlla wu nekk fat ba muy indi la ilaha illallah fatul akbar lay joxe moom kon nit ki bu fekkente ne yàlla may na ko kattan ak féex mu mën koo taxoo nu mu gën a bare nga jël nu mu gën a nag ko jamono mayee rek ci la ko seet ndax bu dikk rek benn baat boo ko waxee njëriñam ci xamul ñu toll bu fekkee ne dañ ko xaas la nga xam ne kuy tërbiye la cheikhu tërbiye wala cheikhu tërbiye ko ko jox day seet xaalam xam lim bi mu koy jox na muy toll yan jamono la koy def waaye daay yaa ci di laa in al isnul am ci lu ñëpp lañ ko tëral te nu mu gën a bare su yàlla moom day bëree seetaan te li bëree seetaan te seetaan du ndox waxtu boo ko jàddee ba war ko mu sonal kon foo toll nekk ci moo gën waaye li muy war a àndal ba ngeen ñu am solo waxoon naa ko ba tuddee rek mooy xol bu laal ci melo yu ñaaw yi mooy rëy añaan bëgg àdduna soxor bari noone noonoon ay nit te du ngir yàlla yooyu ndax wax naa ne yooyu mu ngi mel ne ay ñam maanaam yàlla mu nekk ci néeg seetaan bi xaj bi yow borom nit ki boo dàqee seytaane bi bu génn rek xaj bi dafa xiif na yàpp bi day day laaxut ne ba nga dem mu dellu si naka noonu tur yàlla bi ngay tudd day tax seytaane day génn sa xol waaye seen jikko yooyu wala melo yooyu ñu si sa xol boo bàyyi koy bàyyi boo si yàlla rek mu daal di la ñamam nekk ndax sa bakkan ba dindi yooyu seytaane amatu ci soxla doo waxtu woo tuddee yàlla waxtu woo tuddee yàlla yëpp day dugg ci wala waxtu bu si ñëwee fàttali fi rek lay doon boo tuddee yàlla mu doon tuddoo si biir bu boobaa nag ci lay jëriñal baax yooyu di ëppee jëriñ baax yooyu ci boppam itam dana dimbali nit ci raxas ay yooyu ndax saabu la saabu la loo gën a fóote rek eh, daal di gën a wàññi boo ko taxal ba taxal te te teewlu ko moom it day dindi ci ko yooyu naka la ñu tafakkur بعد القرآن صمود ذكره بشكره الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا جنوب سن برم هي سواء نعك نعك يوم من نعك وار شكاو جنوب وكان في السماوات والارض يمرون عليها وانا مرسل ومن يؤمن بالله يذكر ñaareel bi bu ma ko déggee mooy ndax dafay xar ni wax dara su waxee ni bu soobee yàlla ak yonente bi ak sëñ Tuuba ndax loolu la bëgg ñu leeral ndax shirk la wala shirk bu soobee yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa wala bu soobee yàlla ak yonent bi wala bu soobee yàlla ak jiw wala ak nangam njuumte lu rëy rëy la ndax coobare moom yàlla doo ko defoo yàlla rek lay soxla jëf benn bi daal amul coobare ak yàlla ndax nee na kon bu soobee yàlla te soobu yonent bi loolu am wala bu soobee yàlla soobu yonent bi te soobu sëñ Tuubaa am du noonu nag yàlla yàlla bi yàlla moom coobare xëccoo ñoom moom dara ba tax benn jàpp sañu ko coobare moom yàlla am moom yàlla moom doo ko def ba nit yàlla doo ko defoo màgg ngeen mu fenn boo xam ne doo ko ne lii mu am diw am na ci nangam ñu bokk le ko mu ëpp le ko ci déedéet kon mën nañ ne mën naa laa defal nangam ngir yàlla ak yonent te si naaw na sax dàqoon na man de man danaa ko jëndal ngir yàlla ak yow mu ne ko yàlla sib na bokkaale loo ko boolee keneen bu moo ci lool moom mu ca ko bokkal kon da nga naan naa ko def ngir yàlla kon nag jëf bu ñu koy jëf nan ko jëf ngir yàlla mën nañ koo jëf ngir yàlla te féetale ko gërëm mooy kii dafa ragal yàlla farlu di jaamu yàlla kii di nit koo xam ne ku sàgg na muy jëfal kii dara ngir yàlla tax ñu ko jëfal waaye ragal yàlla bi mooy sabab bi kon am na féete mën nañoo séddale loolu moom may nañu ko waaye nag bu soobee yàlla ak jiw wala bu soobee yàlla ak nangam yoon waaye bi nii ma nga ca booy bi. asalaamaaleykum mbokk mi. sëriñ bi ginnaaw ban la gërëmee ci leer bi ñu doon defal ci iman te muy lu ñu soxla woon jamono bu yàgg ba léegi man dama am ñaari laaj yu ma bëgg a laaj laaj bi njëkk bi mooy jullit bi nga xam ni gëm na lislaam muy sharia gëm ko tamit mooy àqida maanaam muy yoon mu war a jaar ak mu war a li liggéey kooku ban mawqif la war a jël ci kanamu ndëngte yi nga xam ni laïcité da ko fi amal te di ko di ko di bu baax a baax boobu mooy laaj bi bi laaj ñaareel mooy diggante gëm yàlla ak liggéey ban alaaka moo fi dox ndax gëm kese mën naa baax ba am lu gis fa la dégg. taxadiyaatul bu njëkk

fekkiwul ne masala mu ñëw mu nekk mu xew ci jamono ak xew-xew bu xew ci jamono ah moo xis ba nit ci jullit bi war a jël leer na ci alquran wala leer na ci hadis déedéet ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngalee ijtihad ndax keroog bi nga xamee ne jóge nañ ci waq waqatul ahzab xeexul ahzab te waa banu qurayza waroon yéen ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne dañoo war a dem ñoo ee li nga xam ne ci la jëm loolu bu fekkee ne nit ki saxal na ko di teewlu ni mu waree xam ne béréb bu ci nekk ci béréb bi julli yi la ko war a daf koy fas di ko teewlu loolu day sellal xolam wala nit ki koor ndax koor xiif la te day yàq day dindi ay jikko yu bon ci doomu aadama bi ndax soxla xiif rek a yaay kan man maay kan mu ne ko yow yaay yow man maay man suñu borom nax ko ci safara juróom-ñaar génne ko ne ko yow yaay kan man maay man mu ne ko yow yaay yow man maay man dellu ko nax ci safara juróom ñaar fukki at génne ko ne ko yow yaay kan man maay kan mu ne ko yow yaay yow man maay man mu ko ñaari fan bi mu ko indee ne ko yow yaay kan man maay kan mu ne ko yow yaay bu sell bu mag bi ñu war a jaamu ci ñu ko jaamu ci digg bi ko jaamu jaamu ko jëlee ko jaamu bu ñàkk jaamu nga lor la ko jaamu tuuti bu xeeb bu néew kàttan bii mu ne ko yow xam sa a kooku dina la koy boole xiif kon koo xam ne bu wooree day am ñu ñu tere xam ngeen ñam la muy jël ci deret ak la muy jël ci yaram ak ñam wu nekk la muy jël ba nga xam ne science yi ni ñu misaale lekk yàq ni muy def ci nit ak li muy jeexital ci jikko ni ñu ko misaale ak léegi ma suur ni muy def ak yeneen ñam yëpp yu nekk nit ki bu wooree ñàkk a lekk ñam muy xiif bu dugg doomu boo xam ne du la gaañ moom it ni muy def nga xam ne noonu lay def deret nga xam ne deret mooy béréb bu yëguwaay nit ko yóbbu ci xol nga xam ne day fermer daanaka bunti ban bunti bànneeku शख्सियत अद्भुत हमने दिया नॉन लाइन बिगड़े बैठे शख्सियत की अब बैठे को नम अब बैठे को बैठे को हमने माना पूर्वी अब अगले मतलब नॉन लाइन इंटेलिजेंस की जिसको जो जो नॉइज हुआ माना जिनके ना बैठे हुए ना का नॉन तो हमारे पीछे जिकर न्याय करे और जिनका हमने नॉन लाइन आया करके वायर नॉन लाइन पे जिनका लेयर और अब जिनका हमने नॉन लाइन पूरे को उसके लिए शैतानी बिल्कुल इंटरव्यू करके मेरे को मैंने गाड़ी में बदल डाली मैं गाड़ी आता हूँ मैं अपना करने के निश्चित करके लिए चिरंज में फिर मेरे अज्ञान के आला ज्ञान के आला होगा नमुई जब चिटी मान कर कोई और मैं योनि जब किया करना नौ दिखे मैं जिने दिनों मुझे ऐसे मिला देखा करना ये मुझे क्या अपने क्या मिला मुझे ये मुझे को भाई मुझे कुछ किया करना boole cër yi maam ak tànn bu fekkee xam day bëgg ci day ak ak bët yi jëm nga xam day tax cër yi jëm day tax bët la na yàlla day tax nopp yi bu baax no no ñoom ñaar ñi fekk si am na lu jëf sa morom mën nañ ci wax lu bare bare bare waaye gannaaw laaj dana fi dafa gàtt ñu koy may foofu rek ah loolu ci biir waxtaan am na ci diceekol min ali am jëgu diceekole ali am ëllëg noonu la diine yëpp sallallahu alayhi wa sallam ci wax yoon ilham noonu la gisee xaqax yi bi mu ne ka andi yunus ibni matar yusabbihullah tabaraka wa taala wa tujibuhu al awliyatu wal bihar fa yaqulu allah tabaraka wa taala lahu labbayka ya yunus labbayka ya yunus yonte bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi abaamu xadra bi mu ne mu ne ma nag maa ngi jàngoo yonte yàlla yunus di ko jënim bëttee wàcc ko ci jàqalu géej gi ba naaj bi di tax ci borom taxal garab bu mel ne naaj mu am xob muy muur ko keral ko ba mu xam li ko ba mu ngi sol abaya bu wet di sabal suñu borom montagne ak garab yi di ko tontu suñu borom tabaraka taala ak doo jàll naan ko la béy ba yàlla la béy ba yàlla yonent bi salaam ñii mu jàntox loolu te bu loolu di am na ma yàlla daal àgg naan ni juróom ñaareelu maamu yam bi si àgg yonent bi jàntox julli takkusaan ci Madina su Munawwara sallallahu alayhi wa sallam taxaw ci bérébu ilimaan bi julli takkusaan ñu war ko ba mu tàllal loxo mu bëgg a ci may ñu ay delloo loxo bi mu génnee ne a doon ayee jannatu fi ardi xaalis xaalis xaalis war na ma àjjana ci yaatu waaye lu ñu miin dem naa ba ne si bëgg a war ma ci waroon benn loxo rek wàlla na ñëpp gën a ci màggee xam nga tax àjjana moom lu am ba noppi ndax bind nañ ko lu jiitu aadama lu jiitu bind aadama bind nañ àjjana bind safara waaye nag daal noonu la ko yore si salaam gisee ci ko xamee nii nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam li mu gis ci leeratul mi'raaj lépp nga xam ne ñii mooy ak xeet mooy wa ñii mooy ak xeet dugal ni ñu dugal ak ñii jaam yàlla xeet yàlla xeet jaam yàlla ñii jaam yàlla ak yeneen di fay lépp mu gis ko ci boobu te loolu ñëwagul wane ne dàq bi ñu dàq naan sore gërëm loolu lañ dàqee sore jamono xam nga lépp teewandoo ci xam-xamu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax nga xam ne borom li mu wax ci biir yaay bi loolu la waaye nag bu sax dafa daf koo gis ci xam-xamam maanaam xam nga dafay gudd kon daal wax al wujud maanaam bu wujud yi am yi nga xam ne loo ci nekkal ذرة xawaari yi ñoom ñoo sàkk al mansilatu bay na mansilatayni pour ñoom ci kuy def bàkkaar bu mag bàkkaar yu mag ci la naan sàngara bay fekk yëpp ci la bokk pour ñoom doon la nit doon la solutal loolu la xawaari yi al mansilatu bay na mansilatayni waaye xam nga ne xam si ñoom daal nañ loolu al sunna si ñoom day la ahad min ahli qiblati bi zulmi wala bil kabirati ahlu sunna moom képp koo xam ne nangu ko ne yàlla am na ak yonent bi da nga julli jullit nga jullit nga bi nga génne ci euh, ne nit ñaar lañ ci gëm ak ci gëmul ci gëmul taxul wax safaraay jël ci gëm ñaar ci ki gëm nag mooy këram àjjana ko ko ki gëm tey mooy ki gëm ki gëm tey mooy dañ ko dagal ak ki gëm tey mooy dañ ko dagal ki gëm bi mooy kañ ko dagal borom bi daa ko muy woote ñu si bidaa kooku ki gëm te dagal na lu dagal na ko xam mooy mu day mooy te dagal na lu mooy nga xam ne dafa aral ñaata na benn du ko tuub wala du ko tuub di ko def daal di ko jégal xam ne nit bi am na ay chartes mooy ñett yi faaw mu nekk lu mu defoon fas yéene mu dalaata li mu mën ko mu bu ki koy tuub daal di ki ko dul tuub benn mooy boo ma ñëwul wala kenn min nga gën fa mu foog ko mbiram mbiram bu ñu dee suñu borom la maanaam sa nga daal à la discrétion yàlla daal di taxee lu ko soxla bu ko neexee bu jëkkër bi ndax yow yaa ñuy dem àjjana bi léegi di nga xam ne dafay dem àjjana ci jëfam waaye bu jëfam nga yëg yàlla yërmande yàlla bi jëfe ndax yàlla ci ñu dem def la soxla buñ ko xiyaasoon natt ko yëpp du dem àjjana ndax yàlla si la doon ne man ak Isa bi Mariam bu ñu suñu borom jàppee suñu jëf la kon nag keneen dafa ñuy wax bu yokku daal ki nga xam ne jëfam baax suñu borom lam liggéey woon dëgg la daf dañ mu mu tàggat ko aje ak ki nga xam ne am na ay bàkkaar am na ay jëf yu baax ñu lekk ko jëf yu baax yi nag wala jëf yu baax yi yëpp dégg ajjana ramu ko mu dem ajjana wala ci ngëneelal yàlla fekk ñi nga xam danaa sax yàlla loo xam ne ñu bari mbooloo moo xam ne day toog suñu borom rek mu ramu leen yërëm leen yóbbu leen ajjana te duñ mën nekk benn sabab gannaaw bu mayee jaar ci kenn ku nekk lim lay yéene la nga xam ne moom nga war a rafet am na jàpp yoo xam ne xamal na leen ñaar ñu war a ak jàpp yoo xam ne xamal na dañuy def mbooloo yu bëri ak ñoo xam ne dana la leen koo bokk rek ma baal ku topp ci julli ma baal ku la defal seet saxal ma baal am na ñu ko defal te xamal leen ko am na ñu ko defal te xamal leen ko ki nga xam ne day moy bu fekkee ne daf koo dagal yoonu sax mën a jaar waaye dañ ko excommunier ko ne ko waaye bu fekkee ne xam na ne lu mu def xaraam na te dana ko tuub yàlla dana ko yërëm yàlla yaara waaye nag faatax la faatax nag xam nga ne dara jàll ci biir jullit bi mooy dara dana dana sëfee moo gën gàtt mu naan waaye bari na dara yoo xam ne ci àgg ndax dañu ko seedeel te benn digal mu tomb ko mu wax ko benn faatax warul loolu ànd ak moom wala ngay ci dañ ko war a tomb daal war ko gannaaw naa ko jël yàlla ko gannaaw waaye kon nga xam ne li nga xam ne boo xamee ñuy ko ñuy yoo dem la dëgg yàlla am na nga muy dëgg bi sërëte la ko faasat bi arab bi nga ànd ak moom wala ngay bokk ak moom ay lu ñu jëm ci moom bu yoon dafa am lu doon lew dañ jàng ñu taw ne al malaika maasumun ba pare ñuy jàngal benn aay bi yàlla na wa is qulna lil malaika isjudu li adama fastajadu ila iblis ilay gis abawas ak barokaan bi nga xees loolu laa bëggoon ku ma ko leeral beneen bi mi ngi ay ci wàllu sawar ay bi yàlla wax naan wa in minkum ila waariduha kaana ala rabbika amran maqdiya su ma la najjilee si na tax wa nara zalimina fiha jasiya loolu laa moom loolu lay la ak wa maana kalimatu warada kalimatu warada warada warada man farq bayna warada wasala بسم الله والنصوص لا تتعلم تتحمل او كان كبير بالعربي مثل الجنة جلي تبيير كل الفرس والصخرة لو كان تحمل عقديا عندنا قوة يعني واحد مسكين حول الله من أبنون جمهور لنا ونحن إلى تنهور قبوري خلق سلاله ربي رب سلاله te siraat tiim safara te jàpp rek nga ci siraat loolu mooy pour bi rab bi safara mooy tiim bi ñu koy tiim ci ci siraat ñu gën a ñi gën a bari ci safara mu toll koy seen kër kenn ku nekk yëggee ko kem sa jëf ak sa ngëm ñii jëf ko ba jàll nga gis koo xam ne kii safara dafa seere karam juróom juróomi téeméer ak ci yéen juróomi téeméer ci taal juróomi téeméer ak ci wàcc juróomi téeméer dañ koo xaj ak maanaam wane nga du yàgg lu gudde gudd la rek lu gudde gudd la ndax ñu jàng ko waa kenn bu nekk sa bëgg la bu mën yëpp nekk ci biir lu gudd la war a doon saxara bu ci tam nit ci jéggi kañ koo xam di ñàkk léeg-léeg mu ñaar loxo rëcc tànk bi lonku mu dellu si waat di ñàkk di ñàkk ba mu yàgg benn loxo rëcc ak ñaari tànk mu jàpp ba beneen ci rek dellu nekkoon di ñàkk nanga bi téeméeri junni at ba wàcc wàccee geeg ko naam sumu jaar mu sant yàlla cant goo xam ne keroog la mos a am naan kenn ci ma jaar amul benn jaar su borom xéewal xéewal wala jiw ma xéewal man mii jàll nii fàttaliku kañu lépp lakk-lakk yee karaw bu tànk bi lakk di la jeexal xet li lakkat si tim bi tàkkat yaram bi ñaram lépp mu fàtte ko ndax mu si ne di samara faaw dana naan kaw na dana ci mu fàtte loolu si lépp ndax génn bu mu génn ci siraat dañ ko xam ni dañ rek mel na ko sax mu gaaw ak yow ci mel ne côté bi gën a gaaw ci mel ne avion ci mel ne xel di xel gaal di mel ne xalaat di mel ne xel xam nga ni jëm yoo xam ne bu ñuy jàng siraat bi jàng safara wi safara wi sàmm bëgg a fay naan ko jëf yàlla bu fay dinañ war a wasi ba gis wax na sama nit ak itam ñu gaaw gaaw sa yàlla ak fay ñu fay sama safara wi xam ne ci aw ngeen bu ñu daan yàlla la taala ne bu ko safara gisoon rek ci ba fay xam ne man amul benn jaar boo xam ne doo jëm siraat mooy wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiyyan lu ñu dogal la borom fàtte ko jeex ci asal bu ñaar moom te du am benn jaar bu mooy ñëpp ci jaar jaar ñi nag mooy beneen bi laaj waaw comme maxaar comme la maxaar yi wax istinaan bu pare iblis bokk ci malaaka yi iblis du malaaka ndax allah ci baal bi mu kër pour lay asulullah maanaam mooy ornement yi ni nga xam ne noonu lañ bindee ci lekk naan noonu lañ bindee malaaka ci sabbal yàlla ak seetal ak maanaam ni mu bindee nit ci mën la naan noonu lañ bindee glace ci mën la mooy mën ko jëlee ko man du ñu lekk du ñu naan du ñu nelaw yëpp du ñu def du ñu ci def lenn nekkuñu ay xaaj lenn loolu te saxaral nañ leen ay bët ak i nopp tànk loxo ci laaj yëpp jënd naa ci suuf si ay nit ñi mu mel ne ñu ne ñun ñëpp ñoo ne dugg ci ñu bàmmeel bàmmeel ci bàmm ko ci nit ñi mooy mooy def ci amul xamal malaaka yëpp si gën leen malaaka yëpp ndax malaaka moo tax ñu ci laaj bi ci ñu tax ci du malaaka mu xaala ba dafa nekk lu ne ci maanaam lu mën a lu possible lu mën lu mën nekk ñu def ndax cosaan moom ko bari na trop ñu wax ko naa leen comprendre ci kan ñu jàpp ñu jàpp ko bàkkaar ko ba aadoo nit ñu lekk mu lekk ko bari na bari na bari na bari na bari na bari na bari na bari na bari na bari na bari na Euh, première xutbaam bu toogee comme ni ni waaj ni sëñ bi de dana am ñoo xam ne dañ ki am ñaan bu ñuy wax may laaj ñaan boobu dafa dafay farata wala dafay sunna suñu war a wax ak lan lañ ci war a ñaan ba pare may laaj ma xam ni si bi sama baat fara la bé euh, yonente bi daana ko woor wala nit ñi rek ñoom ñoo koy woor loolu laa mën muy laaj si bi sama baat jërëjëf amul gàtt laaj bi njëkk bi lan la am ci. naan bi dafa baax dafa am ay ay ay bërëb ak i jamono ak i nit ñu ñu lim ne dañuy nangu seen ñaan waxtu yoo xam ne boo ko ñaanee ñu nangu ko diggante noonu dañuy xam ci la waxtu boo xam ne limaan bi jàng ko ci wala baal ñu ne dara xam ne bis bi dañ cay ñaan waxtu boo xam ne imaam toog ci kaw mu bëri ci la waxtu boo xam ne nag taw a ngi wàcc ci la bokk waxtu fenk teg jant guddi ajuma bisu ajuma béréb bi yonante yi wala gaañ baax yi béréb yu bari la yoo xam ne dañ koy nangu ñaan ba un pêche bi ñoo ko def su borom xamal leen ko ci tam li ñu doon ci loolu bu wa ñu wax ko nit ñi muy loo xam ne dañ ko def tëj ba muy lu am leer mën nañ cee yaatu mën nañ cee yaatu lool wax ci bare bare bare waaye wax def na ba noppi ñaareel bi mooy lan la Chaban ani sunna la wala yeneen daanaka waru la. Déedéet nekkul Chaban nekkul sunna ndax sunna mooy lu yonent bi daan def te saxoo ko loolu moom la ñu tuddi sunna loo xam ne yonent bi daf koo def benn yoon ñaar wala mas koo def ñu xam ngëneelam di ko def lu ñu sopp lañ ko xam ne nii mun na ne julli fajar julli fajar duñu wax ne sunna mais ragal ba dañu wax maanaam yoolam ko ba nga xam ne ngir yërëm jullit ñi bëgg yàlla tax na amul benn naafila lu dul farata dañuy fay lu dul moom moom nit mën na ko fay ba digg ba cëg naka noonu itam ni Saabaan dañuy wax boo ko dañ ndax barke bi nga xam ne moom la am ci yeneen i xadis yu solo ci ne bu bis bu Saxbaan ñëwee dañuy ubbi bunti yéen mën dañuy ubbi bunti asamaan dañuy def ne def ni ci ci def nit ñu ne mu gën a xeetoo julli nga xam ne julli liñ ci digle ci eh, maanaam koor bis bi nga xam ne yiw wi dafa dajale di ko tàmbalee ci fajar di ko tàmbalee jàpp ba ba jant sax ngay topp kon yiw yooyu yëpp yow yaa ci am istirdaat boo xam ne dañu gis bi si ci loolu moo tax ñu xër ci naka mën julli fajar loo xam ne xër ci waaye sunna mooy loo xam ne yàlla bi salaam daf ko digle woon te du farata wala mu loo xam daf koo daan def te saxoo ko ba jóge loolu mooy sunna nit boo te saxoo ko ba jóge loolu mooy sunna nit boo te saxoo ko ba jóge loolu mooy sunna nit boo te saxoo ko ba jóge fi loolu muy fitna waaye nit boo te saxoo ko ba jóge fi loolu muy fitna waaye nit boo te saxoo ko ba jóge fi loolu muy fitna waaye nit boo te saxoo ko ba jóge fi loolu muy fitna waaye nit boo te saxoo ko ba jóge fi loolu muy fitna waaye nit boo te taxoo ko ba jóge loolu mooy sunna waaye nit boo te taxoo ko ba jóge loolu mooy sunna waaye nit boo te taxoo ko ba jóge loolu mooy sunna waaye nit boo te taxoo ko ba jóge loolu mooy sunna waaye nit boo